Alham Production. alaikum ami internet Alham TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk di la ziar di la jox sa way bu wéré wéré wéré wéré di balu ñepp ak ta di leen euh tay nak suñu journée dafa spécial ndax tay mi ngi depo 47e édition Magal des Deux Raka de Saint-Louis té bu né Magal des Deux Raka de Saint-Louis xel day dem ci mam borom Touba mi nga xamante mom mo waral lepp mo waral ba tax da tay ñu ñew fi nga xamante mom modi kaddu gi ñu nara ànd ak di leen wan lépp loo xamante ne maam borom Touba am na fi ay jaar-jaaram def na ko fi mooy ci ay métit li nga xamante ne dund na ko tubaab bi li nga xamante ay xar baax yi nga xamante ne maam borom Touba def na ko fii ci kàddu gi lépp lépp lépp du leen ump à travers notre chaîne Alxam TV la chaîne du Nord incha allah ma ànd seeg maas sama cameraman bi jaa ngeen jëf salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziyaar ñu ngi lay fay bu baax ñun am nañ mbégte li waral mbégte mi mooy barab yi ngeen ñëw di saytu li fi ne loolu yi tey murit ak tiijaan ak ku mën a doon war nga koo sante sëriñ bi ndax day xeexub lislaam sëriñ bi fii dañ ko fi indi woon résidence surveillée keroog biñ ko jëkkee entendre ndax am na ku doon wax ko mooy boroom ndar nga xam ni moom daanaka sëriñ si fi nekkoon moo leen doon dajale ngir wonab jëmmam waaye sëriñ bi ci gàttal ba mu ñëwee def ni yan ma jóor leen ma dinaa ko jaamu looloo indi numéro 4 ba mu duggee ci biroom ndarit tubaab bi ñu doon wax naan mooy borom ndar keroog bu mu tax ak bi ndax waxtaan bi dañ koy dëxëñ rek dañu ko mu dabbirul umuur dañu ko may yàlla jifine fi loolu la maanaam léegi bu doon bu doon jamono ji ñun ab gouverneur la dañ sëñ ci waa anaamu dabbirul umuur man may yàlla ji fi ne sëñ ci waa jël loxoom ndeyjoor ba jël baaraam ba teg ci jëba ni ko kasabte ko fen nga qul allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ñu ni kon kii koom fit la seeni pexe ci yéen ko fi indi résidence surveillée léegi rek la ñuy wax toolu buur mais jardin dese la tuddoon te képp kuy intellectuel boo déggee baatub jardin dese rek di nga xam lan mooy jardin ak dese ndax dafa mel ni baat yu uute teñ boole ko nañ ko bàyyi ñuy jàng ñu xalaat fii bi fi indee sëriñ bi résidence surveillée fii la ko gaynde jëkk fekk moom sëñ Tuubaa ni ko lu yàlla bind Cheikh Ibrahima ci gën a bëgg waaye luy malamaa jëkk jébbalu ci kaw école bi nga xamante ni léegi sax mën nañu wax école waaye am néeg la woon buñ dugaloon Serigne Touba boole ko gaynde boobu ci ay xat-xat yu metti boobu fii jardin bi boobu midi pile kenn du fi dugg waxuma la six heures waxuma la timis waxuma la gée booba metti na booba doy na war lool. mais juste dañu bëggoon nga fàttali ñu rek fàttaliwaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu setan à travers notre chaîne Alxam TV rek ñu bëgg a xam histoire gaynde gi lan moo nekk histoire gaynde gi ak tamit kàdd gi lan moo tax kàdd gi ndax bu ne kàdd gi ñu bari dinañ dute lan mooy kàdd gi lan moo waral loolu ak ban at lañ ko fi sanc ak yan xat-xat la maam borom Touba dund fii ci biir kàdd gi. sëriñ bi fii def ni woon fu neex a jaamoo yàlla la muy kàdd gi moo ko sappaloon boppam sëriñ Serigne ndax fan ko tëjoon gaynde gi dana wuti gaynde goo xam ni dafa tol ci digg ndëndëm te gaaw a fàdd lool waaye soxna si li gën a yéeme ci àdduna nan ngay boole nit boole ka xub gaynde mu jox ko tàndarma soxna si gaynde boo ko joxee tàndarma sa bàyyi fa yàpp mu topp la yaay kan keroog bi nga xamante ni tubaab yi jël gaynde gi fee ci ay ba te ay kaloob dafa am histoire ndax léegi la ñu wax école la mais néeg la woon ab du Diouf année bi mu ko defee école ca la wàcc maa la ko wax te lii ma la wax nii nga dellu ci taarix classe ba sëñ Tuubaa nekkoon ku fa jàng at mi moo tax ñu tëj boo ko weddee demal lu doy waar la keneen ka dellu si woon di wax baatut c'est fini xam nga tubaab moom foo dégg mën a c'est fini rek mooy lu jeex la maanaam bi mu ñëwee ne kàccit bunt bi gaynde ga nee ko caas ni ka la bëggoon def sëriñ bi maa la koy def nga taal yaa ngi nan ko weddi sëriñ bi ni dën rek waaye yàggul dara am beneen tubaab boo xam daa ñëw ni kaccit bunt bi gaynde gi di ko wuti mu naan sëñ ci pardon pardon sëñ Tuubaa ne gaynde gi <laughs> jéggal ko ana lu la def gaynde gi dellu si toog ci sëriñ Tuubaa mu naan sëñ Tuubaa merci sëriñ bi benn yoon la mos a bind baatu tubaab te lii ma lay wax nii ah ko àdduna di déglu looy wax na la wóor benn baat la sëriñ bi mos a bind ci baatu tubaab mooy wa merci wa merci wa merci boo ko wëree ci xas day gis ndax da koy naan ko merci merci ba tëj bint bi daaw sëñ bi dal di muñ jël xalimaam binde wa merci Ahmadou Ndiaye ma beeyi mënuñoo tudd taarix te duñ ko tudd muy jàmbaar lislaam di jàmbaar lool suñ borom wël rekoon ak sëriñ bi keroog ba mu ñëwee dem ci nasaraan bi ni leen dama bëgg sëriñ bi ngeen bàyyi ndax ki xeex indiwu ko dara indiwu ko liggéey lislaam doo nga ko yëkkati ci gàttal sëriñ Tuubaa mu ngi jëkk dugg ci néegum taax ci kër Ahmad Njaay maa bi loolu ba ngeen toppee taarix yi di ngeen ko xam Ahmad Njaay maa bi naan ko Mbàkke dama bëggoon ñaan la dàppel ndax Mbàkke defoon nasaraan bi dara sëriñ bi yëkkati asiru ni ko moo seere dem bi may dem bay dellu doo fi Dinale la fekkat ndar gi li moy ayatu señ bi ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax kaddu leer na ma sha allah euh, leeralal nga ñu xat-xat yi nga xamantani euh, ma borom Touba doon nako dund fi ci kaddu gi tay ku xamul won dina xam ku bëggoon xam tamit bu la dégloo say kaddu rek dina xam sha allah dañ lay baye rek nga jox nga joxe sa mot de la fin rek du dem ba benen yoon insha allah. di len gërëm te di sante sant euh, tay ñaan. ñëpp rek ñëw ci barab bi barkeelu ndax fi barabu ziar la barab pajub aajo la man Mourtada Seck la haji góorum Cheikh Mamadul Mourtada képp ku ñëw di nga fekk te lii sax misaal la ci bu ngeen gisee taarix bi léegi léegi du ñàkk sawaay dina jël li fi teew yépp ci xas di sëñ nun ko fi dunde kon daal dama bëgg yéen li ngeen mën ci woowaa Ndar ah ndax site bi site bi doy war la ndax xam naa ne site bi ñepp di baye xel la. alham TV sunu sag ngeen ndax jéego yi ngeen def ci ñaar rakay son ci lol ngir woon liggey serigne bi inde yeen ngeen dem ba am sen tele bop yal na ngeen dem bu fepp fu ngeen bëgg ag ngeen ag fa ndax alham ak alhamdulilahi ben la wa yal na ngeen ag ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di ñaanal ci barke Cheikh Mouhamadoul Mourtada lépp lu ngeen yóotu rek ci ñaar rakka yi mu yomb leen di ñaan sëñ Muntaxa na fi yàgg rek ndax bu fi yàggee lépp baax soxna jaara fa tabaarakallah ñu ngi leen di sant bu baax a baax suñ xel sedd na suñ yaakaar yokk na jërë ngeen jëf fa tabaarakallah alxamti bi daal ak ñaar rakka yi jërëjëfe Serigne Touba waa lii lañ leen indi woon ci seen euh, reportage fii ci kàdd gi gi dégg ngeen li nga xamante ne sëñ bi macha allah expliqué na ko ci taarix macha allah ba képp koo xamante ne waroon nga xam tey jii di nga xam te ku bëgg xam boo duggee fii nga xamante ne moom moo di Alxam TV la la télé du nord rek incha allah rabbi la chaîne du nord autant pour moi rek di nga xam incha allah rabbi lépp lépp lépp lépp luy xew ci deux raakaay waa ñu fàttali leen rek juste que ne fii dinañ fi julli ñaar raakaay ëllëg nekk ci ndigalu ki nga xamante ne moom mooy xalif général des mourides te ci loolu tamit nañu respecté port des masques yi ñu def gel bi incha allah rab rabi ndax xam ngeen ni euh, màggal gi ren dañ ko décentraliser parce que bëri na ay bërëb yu ñuy jullee ba tax na fii ci kàdd gi bokk na ci bërëb yoo xamante ni dinañ foo jullee incha allah du ma def lu dul bàyyi leen ak euh, euh, soxna Nogay rek mu continuer incha allah rabi. Euh, moo di Guet-Ndar mi ngi nii ñu ngi waajal euh, màggal de Raka yi ñoo ngi nii ku dégg lii xam nga ni ñi ñaa ngi waaj ñu ngi wax ci baatu laa ilaaha illallah xanaa ma dem dul topp ambiance ba ànd ak maas mel ni yéen yéen a ngi koy waaj waaw ñun ñoo waa kër yéen a ngi waaj ñaar Raka yu baax baax a waa ñooy waa Alxam TV la chaîne du Nord waaw daanaka ñoo ngi waaj màggal gi bu baax a baax ndax euh, fi ñu jëm nii maam Cheikh Rafal moo fi denc ay doomam ñooñee la ñuy ziare ji nii pour maanaam nekk ci ay na tey bis bi mooy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall man la ceex Thiouna Ngom Naar Fall waaw kay waaw kay. ku xoolee xam ne nii jéggi na dayoo ndax daaw dafa mel ni ñaar raaka amul woon ndax Covid bi ñëpp xam na ne Covid moo lëmbee léegi mais ren dañ ko décentraliser ah mu nekk laa xamante ni nit ñi dañuy julli fa nga ni mooy euh, ville ak lu euh, mu tudd euh, place Ablaye Wade ak. jumaay murit léegi yow loolu loo sax est que yéen yéen a ngi respecté mesure barrière yi. ñu ngi respecté mesure barrière bu baax waaye nag ñun fi ñu koy jullee mooy fi nga xamee ni fi la ko sëñ Tuubaa julli woon fi sëñ Tuubaa julli woon foofu la ñuy julli julli wuñu feneen amuñu beneen lieu ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké doomi sëñ Tuubaa bi ban ko waxee ni que dañuy sàkk feneen fi ñu jullee dafa ni na ngeen ko jullee fa nga xam ne fa la ko borom jullee woon kon ñun ñii fa ñuy mooy fi xam ne fi la sëñ Tuubaa woon waaw. waaw maas dafa mel ni lii mi ngi nii de ah li mooy ñaar rakka yi. ci yu mag yi laa bokk ku nekk xam na ni jëri organisation yu métti yëpp man maa gàmme yàlla moo ko jox parce que may bàyyi paalu ku ne ñaar rakk yi. ñoo ngi koy respecté moo tax màggal gi ni mu waroon mel melu ko ñoo ngi koy respecté looloo tax ñu wàññi manifestation yi ren amul pare mais su neexee yàlla daañ ko ponk parce que rek la am. te sëñ Touba ku ne ni dafa sonnoon ci màggal gi ba jël ko jox ko waa dafa mel ni lii moo ngi nii de ku gis lii ni yaram daw na ndax dafa ñu dox si baatu laa ilaaha illallah. jërëjëf ñu ngi lay ziar. ñu ngi bu baax ren màggal dafa mel ni yéen koy waaj. waaw dama ni fi mu ne maanaam sunu borom ku ko defalul dara doo la defal dara Serigne Touba mu baax mi nag. dafa dafa defal sunu borom moo tax sunu borom defal ko lii yàlla bu namee ci aw dara fas yéene yow ci yow ëllëg dafa la lu baax dafa lay teg ay natt yu wér boo ko nangoo sant ko ci gërëm ko mu defala la mu defal kenn sëriñ Touba mooy sëriñ si sëriñu ñëpp sëriñ Touba moo mën ñëpp ñoo gi ñaan rek sunu borom ñu yàgg fi te wér barke Cheikhul Khadim loolu am na nooy wax mais nag ñun it kontaan nañ ci yéen lool parce que li leen war yéen koy def di def jëfu jëru julit ñun jotewunoo kenn dara waxunoo kenn tooñunu kenn lu dul liggéey Serigne Touba mënu tax a jóg te liggéey boobu dara mënu te liggéey Serigne tubaa ñoo ngi ci tey ñoo ngi ci ëllëg boo dek ak sant Serigne Touba saa su nekk nag waaw li la leen indiloon tey si journée spéciale ba nga xamante ne moom la ñuy amal euh, bu ne suba la ñaar rakka ah. gis ngeen ni sama naataango boobu nga xamante ne mooy soxla njaara dem na ba wax ñu ci kàddu gi ah. tey tamit gis ngeen euh, ful bi nga xamante ne fa laa nekkoon El Hadj Thiouna jiite ko mais ren sëriñ bi dafa teg ay mesures ba ya nga xamante ni na ñëpp takk seen masque ba pare ñu respecté mesure barrière fii nag lañ ko daan defee boo leen gisee li ngeen xamante ni mooy travaux bi ah fii lañ ko daan defee dafa nekk en chantier léegi ren ñu décentraliser ko yóbbu ko fa nga xamante ni mooy euh, Euh, place Ablaye Wade ak Jumaay euh, Mouride ni waaw ñu ngi leen di jox dig dajé ba suba ak yenen façon reportage merci